sant yàlla julli sinante bi ñoo ngi sant suñu ñaari waajur di nuyu mbokk internet OSTV yëpp di ñaanal ñëpp jàmm Omar Sall ñu ngi leen nuyu di rafetlu bu baax si seet si bi nga ñu seet si quoi waaw ñu dé lay déglu nag incha allah. Mhm. waaw dëgg la. essence yi mën naa ne la combat boobu ñu bëri yëgu ñu ne yàqu na mais fi may wax ak yow nii yàqu na ndax démb bi may takkee samay daal di dem si la sama manager woo sama papa xam nga moom day am kilifa man woowu ñu ma sax sama papa la ñu woo xamal ko ni combat bi yàqu na ici tamit ñu dégg ko bon au début sax gëmuñu ko woon parce que dafa metti quoi bi yow dara ëmp la si c'est la deuxième fois mu am combat ñu dem ba semaine combat bi des ay 3 jours 2 jours mu yàqu. xam nga biñ ko déggee aussi lu doon lu ñu neex mais mënuñu dul sant yàlla parce que aussi ñun ay jaam rek lañ xamuñu lu gën si ñun peut-être loolu dafa doon li gën si ñun donc adversaire bi sax xamuñu ko parce que benn lañu mës a gisante donc mais ñëw nañ nañu indi na ay kayit yu firndeel ne moom dafa blessé ba médecin moo ko tamponné kon mënuñu lu dul waaw sukkandiku su loolu noonu rek di ko ñaanal yàlla mu gaaw tane ñu mën a am beneen date bari ko sur le faux su ma amee beneen adversaire ma bëree mais lépp li important mooy maa ngi koy ñaanal blessure boobu noonu yàlla defal ko si jàmm incha allah. waaw doon nañ ko lijjanti mais xam nga à part euh, diggante jeudi vendredi samedi deux jours munoo ci lijjanti adversaire ngeen war a gisante xam nga day metti daal day metti day metti. te làmb dafa metti préparer sa combat ba mu yegg si fii ñu ne la yàqu na dëgg-dëgg neexul waaw da ngay découragé te doo xamee noo koy wax nit ñi te dinaa la wax benn affaire man sama combat ñu bëri yëg nañ ko sama ñaari combat yàqu yëpp nit ñi yëg nañ ko am na ñoo xam ne jàpp nañ ci bu baax xam naa dinaa leen wax après mais xam nga neexul tamit nga am ñaari combat nga pare pare pare pare ba ba mu des ay deux jours ñëw ne la combat bi yàqu na. yow bu yàggee nit ñi dootuñu la gëmati instant yi mën nga am combat sax wax ko nit ñi sax ñu ne non booy bi day dóor te barki alxuraan combat yëpp régularisé nañ ko woon mu taxaw donc mais nag ñaar yëpp yàlla moo ñëw ak ndogalam mais ñun ay jaam rek lañ waaw fii ay combat yu mag am na fi yàqu kon ñun suñu combat bi bu ñëwee dal si lii nii duñ mën lu dul sante ko yàlla rek xam ni bés bu jotee pour ñu wàcc war a bëre incha allahu rabi dinañ bëre waaw man loolu laa ko gisee rek. waaw maa ngi koy lancé fi direct ci OSTV man say jàmbaar doomu coow leen bi xaritu ñëpp maa ngi leen di yëgal ni combat bi waroon am la 21 mai stade Mbao dafa reporté cause bi mooy sama adversaire dafa blessé instant yi beneen date la ñuy xaar pour bëre waaw mais sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp gis naa niñ ko doon préparé. Omar Saliou ah. gars yi pare woon nañ combat bi de ah. barki alxuraan biyee waaw biyee jaroon na gars yi defaroon nañu ay faussaires pour takk drapeau yi t-shirt yi kaar yi yëpp pare woon na añ bi sax duggoon nañ añ bi teg kon loolu metti na trop mais nag li ma la waxoon rek ñun ay jaam rek la ñu xew xamuñu luy xew suba dañ koy bàyyi ci loxo yàlla xam nga mais dinañ wax ni ñu gën a pare rek ñun moom ñoo ngi si li ñu war a nekk muy entraînement xam nga te man samay supporters bu ñu taxawee si biir kenn ku nekk mën naa la wax ni mu tudd waaw ñun ay frère la ñun ñëpp muy waa Thiawlène waa barni waa Tëngéej yëpp waa parcelle waa Fandène waa Tivaouane Peulh waa Yëmbal man dam fu nekk dama fa am ay nit xam nga ba Tawa Fall fële Serif Lo am naa fa ay nit cees ñëpp ñëpp rek maa leen koy yëgal di leen wax ni combat bi yàqu na waaw di leen masoo bu baax a baax a baax man dama amoon kersa ba instant ñu bëri xamuñu ko dama am kersa nu ma leen koy waxee quoi barki alxuraanu karim dama am kersa muy nu may ma koy defee sax istati ne leen combat bi amatul te parce que dafa metti quoi entraîné ba toll fii dama ñëwoon regroupement deux semaines laa fi am yow dara ëmp la si dama jógee fi ma dëkk ñëw fii nii regroupement fi ma fekk nii Kër Waa des Arènes xam nga di ko nuyuwaale de passage sama papa jàpp na si bu baax di nuyuwaale sama papa moom mi nga fekk fi nuyu ko léegi moom papa ju baax su ñun la moom suñuy bés da koy ëpp sax loxo waaw maa ngi koy ñaanalaale prompt aussi dafa xaw a malaat fan yi rek mais maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax waaw. waaw loolu yëpp waxtaan lay dépendre loolu dinaa ko bàyyi si loxo kilifa rek mais nag beneen pro beneen promoteur bu amee pour tëgg sama combat si lu gaaw. Mhm. incha allah rabi ñun tamit pare nañ pour bëre kële bu jàppaatee dat ñu bëreel ko rek loolu amul benn problème. maanaam daal libéré na la fépp euh, waaw instant yi libéré libéré mun na mun nañu mun naa ne libéré nañ ma parce que su ma gisee woon avance instant yi nii. Hmm. mun naa ko jël bëre mais du tere moom dinaa ko bëreel. parce que moom moom bu sañoon làmb ji day am ma wax la benn affaire bu garaw gis nga làmb jooju 4 com 5 combat la waroon am. Hmm. instant yi may wax yoon yi promoteur dafa am problème mu benn combat bu remplacé 4 combat yi muy 5 combat parce que CNG kenn du fa régulariser 4 combat hmm. dafa am dafa boobu noonu. kon tey jii kooku boo ko bëggee taxaw nakaan noo dama waroon a bëri affaire yooyu non non ndogal la rek bu dal si ñun ñëpp man blessure boobu dal ko mënoon na ma dal kon moom bu ko dalee rek dal si koo xam rek duñu mën lu dul maasawu ko man yëkkati naa sama téléphone woo ko moom promoteur bi maasawu ko xamul ko nii nii la waaw yow yi gan nga ci nii la demee rek laaj naa ko sama numéro adversaire mais amu ko pour maasawu ko seet ko rek àdduna moom amul solo. kan kan mooy say jàmbaar waaw say jàmbaar benn ndaw la rek xam nga du ma bëgg sax di présenté wu pour pour pour nit ñi xam ma waaw man jàpp naa ne li tax nit ñi di ma daw nii dafa am ñoo xam ne dañu ma jot a mais say jàmbaar daal mooy say jàmbaar. waaw jàmbaar daal mooy say jàmbaar maa ngi si mboq di bëre xam nga waaw di bay sama waar bu baax bëgg dugg ci arène bi nag wane sama bopp. Uh-huh. incha allah loo bokk ak Modou mais xam nga côté yooyu du fa bëgg di dugg parce que Modou Lo sama rakk papa la Petit li mu doonee doomu Modou Lo man noonu laa doonee doomu Modou Lo parce que man ak Petit Lo ñu bokk ndey ak baay kon li mu doon si Modou laa doon si Modou Lo mais xam nga gars yi boo nee ay doomu motloo rek soit dañ naan kii dafa bëgg kot wala soit kii booy dafa bëri jàppale duñ ko jël dafa bëri mystique duñ ko jël moo tax man dama bëgg di leeral côté boobu noonu man dama bëgg di demee ak bopp man say jàmbaar waaw trace am na trace mais man Thiolène laa féetee Tëngéej Bargny xam nga di profité di nuyu boor boobu yëpp man côté boobu laa féetee mu fi ñëw regroupement rek pour entraîner waaw man daal dama bëgg fayatal sama bopp waneel sama bopp comme Petit li ñuy wax doomu Modou Lo doomu rek mais Modou Lo dugg si géew bi jàppal ko tànk moom mooy fayatal boppam ni mu fayatalee boppam nii man noonu laa bëggee fayatal sama bopp ba génne moo tax du ma sax faral di nekk di wax ay doomu Modou Lo ak affaire yii nii. mais lan moo la pa pa Modou Lo sax nit ñi Modou rek lañ gis mais man sam papa mbër la nekkoon ñu dañoo judd rek fekk ngemb la ci biir nee la man depuis ma nekk liir ju hôpital nekk avant ñu may ngénte sax sam papa dafa ma daan téye nii di ma foyee ci kaw lal bi di ma tël may bëreeg moom kon man su ma juddoo bëreew ma rek man damay tooñ ñun làmb ji dañu dañ juddu fekk ko fi xam nga waaw moo tax mënuñu lu dul nekk ci rek ba keroog yàlla di def li muy def quoi bëgg-bëgg la rek passion la xam nga dañ ci nekk bu doxalee ñu dem nekk suñuy liggéey parce que am na ay métiers yu ñuy def waaw bu ñu wàccee dem entraînement nekk ci jëluñu suñu temps yëpp di concentré ci làmb di lancé waale jeunes yi nga xam ne nii ñoo bëgg sport bi xam nga di leen wax ni sport bi nii sport la ba nga xam ne dafa metti dafa metti dafa metti da ngay dem entraînement ñëw doo am sax loo reeree gars yi nañuy liggéey gis nga bu amul combat def benn séance du la wàññi dara boo amul combat boo liggéeyee ba 5 heures nga wàcc dem dem dem écrire nga contact boo amee combat nag mun nga def saf noon def noon def noon ba combat bi des ay 2 semaines nga ñaan ki ngay liggéeyal wala une semaine mu mooy la ngay récupérer di entraîner di récupérer di entraîner parce que dafa metti yow dara ëmp la si promoteur yi xam nga ni ñuy tëggee làmb léegi il faut nga am jàppale pour ñu tëggal la il faut nga am jàppale dëgg-dëgg instant yi xoolatuñ ay mën a bëreek ay palmarès da ngay gis mbër mu am deux combats mooy bëree grand combat wala mooy bëree spécial te parce que dafa am jàppale waaw di lancer walla appel foofu gars yi nañ ñëw jàppale ñu ñun bu ñu amee combat day metti loolu gars yi dañu war a jàppale te li ñuy ñun jàppale bi ñuy laaj jàppale jàppale yëpp du yékki xaalis teg ko suñu loxo non ñun li ñuy kii yëpp ñun mën lañ sax jox numéro promoteur bi nga envoyé ko xaalis bi mu jox la ay billets nga may ko booy ñu loolooy suñu problème te parce que booy yi xamuñu jënd billet te loolu tamit dafa war a jeex ci làmb booy gis nga mbër boo ko bëggee il faut nga jéem a def benn làmb billet bi gën a ndaw 2000 lay jar yow mbër mi boo bëggee mu dem entraînement j'ai comprendre lijjanti lu lu mu def si boppam préparer combat bi fay saal dem géej coono yooyu muy taj ut ay protéines j'ai si ñu koy def ut ay garab yoo xam ne nii xam nga pour yaramam la jours si mu ñëw mu toggal la ñaari mën a ceeb nga lekk ba suur bëgg la utal ay t-shirt utal la ay kaar mais yow le minimum le minimum mais jëndal benn billet. mais même billet bi dañ lay forcer bu dee 2000 la jar sax mënoon la ko jaay 1000 francs mais da gis ne gars yi dañuy ñëw di taxaw di ñaan billet te loolu dafa war a jeex ci làmb te incha allahu rabbi sama côté moom loolu du ci am moom gis nga nit ñi bu ñu la utalee carte utalee t-shirt waaw wala yow mbër mi yow fan si club bi mën nga organiser ay yoo xam ne ni ay simb xam nga genre ay ket ay kermesse yoo xam ne ni yéen fan si club bi yéenay moom seen kees waaw bu amee yéenay jëndal seen billet bopp xam nga mais lépp mbër mi la koy defal loolu dafa metti quoi loolu dafa metti ñu ñëwaat mhm. Lo mhm. waaw incha allah loolu lañ bëgg te ñoo ngi si tànk yooyu noonu boo gisee foluñu ba léegi ñun boo gisee ñun bëri ñu sax ay cappi-cappi si net bi wala ci stade affaire yooyu noonu parce que ñun dañoo bëgg di wax lu bari di wax tuuti di job lu bari quoi xam nga yow xam nga ci lu bari. waaw médiatiser médiatiser bu yàggee nañ naan kii dafa bëri wax. te parce que dafa defagoo fi dara di wax rek tey boo duggee say jaamaar boo bindee gis fa ay 10 interview gisoo fa benn combat loolu amul sens au moins boo defee interview na na na lu am solo tax nga def ko xam nga am loo xam ne da nga ko bëgg a wax mu jàll man loolu moo ëpp solo ko chaque jour nga def interview boo xam ne ni amagoo combat amoon dara di wax rek xam nga noonu la demee. booy yi xam nga yi xam nga man mooy li ma la wax rek dama am ñaari kombaa mu yàqu mm. kon du ma nekk fi di naan kii laa bëgg mm. kële laa bëgg tey jii sama ñaari combat yi su ma ko bëri woon ba pare boo mm. taxee ne ma adversaire dama naan diw war a bëreel mais li ma lay wax nii lii la booy fi am ñaari combat ba ñetti combat ak ñi amagul benn combat pare naa pour bëri ak ñoom no man booy xaw ma leen xaw ma leen mais non xam nga xam nga instant boo fi tuddee tur dañ naan noo kii defagul benn combat di tudd ay tur war mhm. ki alxuraanu karim loolu kasee tax mais waaw bëgg-bëgg nit da ngay gis mbër sax mu neex la nga xam ne kii nii buñ bëree dina neex waaw bëri na fi ay booy yoo xam ne waaw bëri na fi man bëri naa ay adversaire yu ma war a bëreel bàyyi ñu bàyyi noonu rek Omar Saliou barki alxuraan man jàmm gën bëri naa fi ay adversaire géejaay bëri naa fi adversaire Pikine bëri jàmm gën ñoo caatu jolof mun nañ bëre. Ah. waaw caatu fora mun nañ bëre. Ah. waaw caatu kayre bu dalifor mun nañ bëre. caatu kayre diis na diis. xam caatu kay rek ñëpp. jaawale parce que alxuraan mënuñu jaawale loolu. caatu kay diisul diisul sama kanam de. waaw mooy li ma la wax rek ñépp rek mun nañ ñëw ñu bëre. Ah. waaw. parce que mooy li ma la wax defaguma fi dara. ñaar waaw bu ñëwee bu ko pro promoteur bëggee rek mun na nekk incha allah. waaw yow boo ko démarché yow yaa xaritu gars uh-huh. war nga mën a taxaw. bu buy neex la incha allah. Uh-huh. waaw xam nga booy nag dama leen dul xam. Mm. man booy man booy du ma ay interview man seen combat laa gën a seetaan kay interview parce que ay wax rek amul njëriñ. waaw man ay combat laay seetaan xam nga parfois nag làmb am ma paas dem waaw moo tax yow yaa gën a xam booy mais yow xam nga ñi ma war a bëreel. Hmm. yow xam nga ñu mu war a bëreel bu baax yow Omar Saliou parce que yow xam nga booy miin nga leen quoi. Hmm. mais dama koy dégg rek mais xaw ma ko. mais bu ñu làmb bëre boolee rek dinañ bëre incha allah. Ah, waaw man booy bëri cëfar cëfar laa bëgg booy bari coow. Hmm. waaw. waaw booy bëri cëfër cëfër laa bëgg même Tidiane Faye bi daan bi daan 1 giga kooku war nañ mën a bëre. bu géejawaay waaw. kooku war nañ mën a bëre man ak moom. waaw ñoo tolloo taay ñoo yow yàgg laaj nongolo fàtte naa ko nongolo mais jël kon ñu bëre. nongolo na jël ñu bëre. non man ak booy nag man ak booy yooyu ngay wax ni yëpp bokkuñu man ak bi ñëpp bokkuñu man sama bopp man say jàmbaar nga wax say jàmbaar yoo xam nga luy say jàmbaar dama laajte ko say jàmbaar nga wax ak ndongolo bokkuñu sax. waaw champion lañ ñëpp ay champion lañ moom mi def moom amagul defet waaw amagul defet kon champion la te moo njëkk a wàcc mais bu ñu wàccee rek fekk si ko incha allah. non du ñu am runkum daje dañuy taxaw xeex. Hmm. waaw duñ def runkum de ah, dañuy raag ba kenn wàcc kay ah. Ah. naa man su ma tegee benn paa damay kalaat parce que sama premier combat damay wane sama bopp incha allah si côté mobilisation si côté xeex si côté bëre dañ bàyyi ba pare rek. incha allah waaw dañuy sant bu baax. Mhm. di gërëm ñëpp di wu ñëpp tamit. Mhm. di nuyu sama papa bu baax. moom kuy sonn sunuy combat la di nuyu tamit sama yaay. di nuyu waa parcelle 1 ba 26 di nuyu sama maam fii nii xam nga. du nuyu waa Bargny fi ma nekk man Bargny sama lépp waaw man Bargny sama lépp falaa am lépp xam nga di nuyu sama frère yi nekk foofu noonu góor gi kan di ko nuyu bu baax moo ko soxnaam si xam nga di nuyu di nuyu sama ñi may lay bëgg lim nii ñii amee combat dañuy sonn man muy Assane ak oh, Petit La ñu xam si Thioune ak Baye Zal ñi dox lépp xam nga di nuyu jigéen ñi fa nekk di nuyu Amin Dakan sama jigéen sama lépp maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu suma temps Aïda xam nga di ko wax moom gis nañ li muy def si njaboot gi yàlla na ko yàlla fay waaye di di di ñaanal bu baax sama ndijaay jibi yàlla na ko yàlla yërëm xaari ko aljana mënu ma wax ci moom lu bari parce que damay sama xol day tooy waaye sama papa woon sama lépp sama xarit la woon ba léegi nii ndeysaan mënu ma wax sax ci moom lu bari kon émission bi day yàqu mais li mu bàyyi yëpp yi impact yàlla na ko yàlla yërëm xaari ko aljana ak ñii ko fekk ak ñi muy fekk di ñaanal sama bàjjan ndeykan waaw feebar bi mu am nii incha allahu rabbi gëm nañ ne yàlla dina ko teggi te yàlla sax dina ko teggi yàlla na ko yàlla teggi parce que dafa am feebar bu métti bu ko dal xam nga ñu si lancé waale appel ñëpp jàpp si parce que da koy daanal muy métti jalise ngay monté lay appareil yàlla baax na yàlla yàlla motel lépp di nuyu sama ndijaay jaraaf Tanor Kan bu tëg ngay jurufisk moom kuy sonn ci bési nit ñi la di nuyu sama nijaay Serigne Ngay di nuyu sama taamami tànday tànjoona tàmmarem kan di nuyu ñoom binet maa ngi nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ku lim rek dangay juum di nuyu bàjjan asu ñoom njoona kana ñoom cëba jenn sama bàjjan nekk foofu ñoom waaw maa ngi nuyu ñëpp ñëpp ñëpp mais di nuyu tamit ñu jàpp si combat bi baax combat am na ñu si jàpp xam nga ñoo xam ne tamit diggal nañu ma ay jàppale xam nga ku si mel ni sama père Paa Fodé Ngom borom barñi mook Badu Badu Ngom ak copain Lamine Cissé ak yu su Ndiaye docteur moom amu fayam ñoom ñoom su ma leen waxee rek ñooy ñooy borom bergerie ak lu laay di nuyuwaale Baye Zal mi fa nekk di leen ñaanal li mu bëgg si bergerie boobu noonu yàlla defal leen ko yàlla defal leen lu koy seen njort si barke Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di nuyu tamit euh, vie Mapenda Diop waaw moom jàpp na si bu baax kooku sama sang la maa ngi nuyu tamit Elimane monsieur Elimane Dieng jàpp na si Moussa Samb jàpp na si bu baax waaw gars yi daal jàpp nañ si li ma la mën a wax xam nga xel moom day fattu sax waaw mais gars yi jàpp nañ si bu baax a baax a baax di nuyu sama famille bi yëpp yëpp yëpp waa waa kër Maam Marie maa ngi leen nuyu bu baax a baax waa kër Maam ñoom jàpp nañ si bu baax a baax gis nga gis naa ñaan yeeg lépp lépp lépp Cheikh tijaan Séri Mati yow su ma la santul da nga may mere maa ngi lay nuyu di la sant waaw di sant ñëpp di nuyu Bunaama waa diaspora bi mhm. Bunaama fay sama freer la temps dafa dëgër ci moom rek mais borom baax la ñoom ñoo mbay sama gars yi nekk foofu ñëpp ñëpp ñëpp Bigui maa ngi koy nuyu bu baax maa ngi nuyu ñëpp ñëpp ñëpp sek xel mooy fàttu te émission préparé wuñu ko mais kon dañuy dressé benn liste sant ñëpp gërëm ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm